loolu yëpp ci teewaayu suñu papa El Hadj Mansour la El Hadj Mansour ñu lay nuyu di la jaale ki fi jógee di la bàyyi rek nga def témoignage ci kii di président Lamine Diack. maa ngi laa nuyu bu baax ak di la ziar ak di la gërëm la sant ku rëy ku xam ni li mu def ci réew mi bariwul ko def waxuma maire waxuma député waxuma ministre mu un grand africain un grand sénégalais un homme moo fi jóge tey mhm. li ma leen wax daal mooy gorom sàmm na ko mhm. mosu boole dara lu xam dana rax ngorom kaddu yàlla defoon na ñi gën a am kaddu ci réew mi lu mu la wax loolu dëgg du wax it lu mu deful lépp loo xam ci àddina di ay mbokkam di kër ndeyam di kër baayam di ay xaritam wallahi Lamine Diack def na ci ñoom lu xam kenn def ko hmm. ak def ko ci biir Sénégal maa ngi laa wax ne Lamine Diack as gor la Lamine Diack jullit àqam dem na Lamine Diack un grand dem na Lamine Diack un grand africain dem ta ma lay wax rek nag ci ay jukkoom lu mu la wax moom lay def moom ci boppam yi ci dimbali ci réew mi bu nu am ay kër ba seen yeboon du taxawaalu kenn xamul lu mu doon Lamine Diack li faj ci gàcce ci réew mi ba ñooñu kenn xamul lépp lu mu seqoon ak ñoom kenn mësu ko xam dem na waxtaan man fekk naa ko France ñaari yoon. dem toog ak moom mu ne Mansour lépp lu xam ni yàlla dogal na ko ci man jaam mënu ci dara waaye daal Sénégal googu xam ni sur le plan sport li ma ci def Mansour ba yooyu yaa ko xam ba ma nekkee inspecteur <laughs> des impôts Mansour Mbaye yow yaa ko xam. Mansour Mbaye fi ma jaar amul dërëm lu ci waaye sama góor gi teratu tax ma jaay ko. lépp lu xam ne it yéene naa ko sama làmmiñ wi mën naa ko wax ba Sénégal yëpp xam ko gis nga ni mu daan def yi bu dee invité sur le plan international képp kuy bokkam ku kuy xaritam képp kuy soppam leen jàng ba suñu fàtte kenn li ma lay wax daal Hajj Malick ci mhm. dëgg-dëgg ñàkk loolu diine ji ñàkk na it ak lislaam bi ñàkk na ak tarixa Cheikh Ahmed Tidiane ak képp kuy wax ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muhammadu rasulullah solo alayhi wa sallam Lamine Diack ànd lu mu diggaale ak yow li mu def dimbali ay nit ci du tabax ay jàkk waxuma Lamine Diack li mu jox ay nit ay parcelle ay terrain mu nekkee inspecteur des impôts lu dëkk fa ak seen i njaboot waxuma Lamine Diack boo kiifee wallahi kenn du xiif ba gis Lamine Diack xiifaan ndax lépp loo ko wax ci lu xam ni dafa jëm ci yàlla jëm ci rasulullah jëm ci dimbali doomu aadama Lamine Diack ci loolu la nekkoon Hajj Malick daal mhm. li ma la mën a wax daal Sénégal ñàkk dul tey réew mi ñàkk dul Afrique ñàkk na international ñàkk dul loolu daal laa la mën a wax ci Lamine Diack sama xarit nag Mm-hmm. lépp lu xam ne as gor dana ko diggaale boroomu gorom Lamine Diack déggaale da ko ak mat maa ngi age Abdoulaye Daara yaa da ko yàlla yërëm mm-hmm. ma sonu ko seeti mun waxee ma seen problème yëpp lépp lu ngeen am ci problème ca mën ko faj dinaa ko def boo ko fekkee France it yàggul ça fait rek euh, euh, deux ans ñu ne la Hadj Mansour lépp lu xam ne defoon naa ko ci lu baax aw ma dara lu ma ci riccu bu doon tey loolu laay def yaa da ko yàlla yërëm yaa da ko yàlla xare àjjana Hadj Malick ñàkk nañu askan ñàkk nañu ko xam ni sur tous les plans sur le plan administratif sur le plan sportif sur le plan personnel sur le plan de la famille mais ki nu ñàkk tey yaakaar naa ni ah yàgg nañu nu ñàkk nit ñu baax de. Hmm. waaye wallaahi ñàkk nañu tey ko xam ni Sénégal yëpp daanu ko jaay. Afrique yëpp daanu ko jaay sur le plan international yëpp daanu ko jooy xaaj Malick daal kàddu yooyu laa amoon di ko jaale rek sama jarbaat sama xarit Youssou Ndour maa boobu ak àdduna boobu da koy tuddee combat bu rëy ba no Youssou li il faut que ma ñëw teew ci kanamu Lamine Diack keroog doo teew maa ngi koy jaale Sénégal yëpp di ko jaale rek président de la République moom i xam ni sunu borom tabaraka wa moom la def mu nekk si bopp réew mi di ko jaale rek Seydi Boubacar Ibn Alaaji Mansour xaritama lépp lu xam ni nit dina ko digaale kilifa diineem ak ko xam daf ko yaakaar digaale da ko ak Seydi Boubacar lu Seydi Boubacar rek déedéet te Seydi Hamza si alaami bi Cheikh Seydi Ahmed Tidiane si elmul tóom lépp lu xam ni ci dëgg-dëgg muy mu doon koo xam ne dara sax jaxasoo ak suñu dara lawit yàgg daal diine yi yàq ko l'islam bi yàq ko tariq bi yàq ko Sénégal yàq na ko Afrique yàq na ko yëpp ku sportif tey wallahi yàq nga ko xam ne moom waxuma fu ay français waxuma fusion yi xam ne def na ko ah ah waaye li mu def yow xelal nga xëy yu bari yu xam ni ci dëgg-dëgg xamoo ko waaye am na nag yow fekkee wala am na yu la nettali mhm. tey daal du ñuy wax ni sénégalais yi bu mag la Sénégal la Sénégal ñàkk tey jërëjëf suñu papa Mansour ñu koy ñaanal moom yàlla guddal fanam yàggal ko ci suñu kanam wéral ko lool moom Seydil Hadj Mansour muy euh, ak mu nga xam ne euh, li mu fekkee bëri na waaye tamit lu baax lay wax lu baax lay jëf ni ñu koy waxee amul frontière ci politique bi amul frontière ci diine ji euh, fépp fu mu taxaw yëkkati kàddu lu rafet rek la mës di wax suñu papa Mansour yàlla na yàlla guddal fanam ki nga xam ne moo fi jóge nag muy président Lamine Diack